Eh, di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eh, sama soppe la woon sama xarit la woon sama wëlëre la woon eh, dimanche ji weesu rek dégg nga lañ fi mujj dimanche ji nga xam ne moo jiitu Magal Porokhane fii lañ yenn maag moom ci sëriñ Mountakha waaw sëñ bi dégg nga fonkoon ko lool nag tey jii bi ma ko yëgalee xew-xew yi lim ma njëkk wax dégg nga damaa yaakaar sax de ki ma ki ma ma woo téléphone yónni ko ci sëñ Mountakha dafa juum muy Mountakha Mbacke sama doom bi mu waxee li mu wax ne ma sëñ bi ne ñu indi ko fii ma laajal ko mu ne ma sëñ bi ne ñu indi ko ñu indil ko ko fii xam nga ñu indi ko fi ak ñu indil ko fii moom kon day mel ni mi ngi préciser waaw di incité da nga ci laa wooyee oto gémi yi ñu jës ma fii ci sama kër da nga yóbbu ma kër sëñ ba ci gi ñu àggee ñu dagg siyaare ma sëgg wax ma mu ne ma demal na ko dem nañu nañ ma ko indil fii léegi it bi mu duggee ku ñu wax Muntaxa Siré di bëkki néegam waat na ma jox ma sëñ bi sëñ ma nañ ma ko indil fii ngir ñaar la woon ci Sëriñ Tuubaa mbokk la ci Sëriñ Tuubaa waaye taalibi Sëriñ Tuubaa la waaw ni la ma ko sëñ Muntaxa kon nag dégg nga te yaakaar naa ne luñ euh, lu ñu xamee ci rek dégg nga borom Tuubaa fu mu wax ne yóbbul ma fa ngir yaakaar tax war nañ ko faa ko ko faa yóbbu kon euh, war nañ ko faa yóbbu baax a baax a baax da nga ci daal daal ci suñu xel te rafet njort te xam naa lu nekk Tuubaa rek nga fii la juddoo waaw kon nag da nga suñu suñu indil ma ko fii da nga yaakaar xam ne moom la tax mu indil ma ko fii lim ma ci tegal di maam mooy da nga maam musta musta lañ ci Sëñ Tuubaa li dama tegal dégg nga indi ko fii mooy taw fee xam loolu loolu loolu sëñ Muntaxa wax na ma ko waaw indi ko fii dégg nga mooy taw fee xam daal ne ma mos mos dañ ci moom liggéey suñu tubaab Cheikh Ibra waaw ñun ñun suñu tubaab Cheikh nga daal ne ma nag dégg nga taw fee xam kon nañ ma ko indil fii waaw kon daal maa ngi ñaan mbokk yi nañ jiboo ñëpp ci indi ko fii xam ne Tuubaa mooy Poroxaan te sëriñ Tuubaa la mu waxoon maam lu mu waxoon rek dégg nga soo ne jàng Porokhane dana la fekk mbaam nga fekk ko fi kon nag yaakaar na loolu war dal xam te kii fi ko fi wut tey ci kaw suuf di moo nañ ko indil su waxoon nañ ko yóbbu bopp koro nañ ko yóbbu kuli koro waaw am murid moom dégg am néew dina dégg nga nga may kon li sëriñ bi wax rek dégg nga def